ko Paul Kagame président bu Rwanda waxee ñaan ma ma nit ma def bokk ci campagne bi maa ngi leen di invité yéen itam yéen wax Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku nekk ci biir réew mi yéen itam ngeen def tasaare lii di raxas ay loxo pour ñu xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid 19. pour loolu nag ñu mën a raxasee loxo yi te mu nekk raxas bu bu bu yanu maanaam bu am solo mooy ginnaaw bu ñu ubbee robinet bi wala ñu sottil ñu ndox si suñu loxo bu fekkee keneen moo yor bërëb muy sotte ndox lu mel ni satala wala butéel ñu tooyal loxo yi ginnaaw buñ ko tooyalee ñu jël saabu. wala moo xam saabu përngal bi wala boog savon liquide. sotti ko ci biir loxo yi su ko defee buñ ko sottee ci diggu loxo bi ñu jël ñaari loxo yi daldi ko frotter yëngal ko bu baax a baax ñaari loxo yi jaarale ko ci baaraam yi ba ci wey we bu ne nag ñu fexe fomp ko bu baax ak saabu bi ndax xëy na ci wey ci la feebar bi gën a mën a duggee su ko defee ñu frotter daal loxo yi ci biir ak ci biti biir loxo bi ak biti loxo bi bu baax a baax jël temps nag lu mu bon bon mu nekk genn wàllu minute muy trente secondes su loolu weesoo ñu daldi li ñu wax euh, jël loxo bi ci benn bi ci ndeyjoor teg ko ci càmmoñ bi frotter bu baax a baax su boobu paree ñu frotter ci biir frotter ci biti ak ci boor yi su loolu yëpp pare nag ñu daldi yëngal bu baax a baax loxo yi ba mu ba mu xëpp saabu bi bu xëbee ñu dooga nag delloo loxo yi raxas ko ak ndox ba mu set su ko defee ñu jël serviette wala lu ñu am loo xam ne lu set la lu ñu mën a fompe suñu loxo ñu daal ko fomp bu dee robinet ñu tëj robinet bi mën nañ sax bu ñu defee saabu bi rek tëj robine bi bu ñu paree nag doo ko ubbiwaat sotti ndox mi parce que faaw ñu yàq na ndox mi aussi su ko defee ñu jël morceau bi fomp loxo yi ba mu set doog a fomp it robinet bi wala boog li nga xam ne moom la ñu euh, jëfandikoo bu fekkee benn nit la bu fekkee ki yor satal la moo lay sotti wala butéel du aaju su boobaa nga tëj robinet bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bokk boole ko si lii tax ñu gën a fagaru si jàngoro Covid 19. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu gërëmaat leen bu baax a baax sargalaat leen amaat mbégte toogaat présenté waa leen seen émission takkusaan ni ñu koy defee rek ay ba si ne jot altine lay doon ba alxamis waaye nag macha allah comme ni ñu koy waxee dañoo changé heure bi léegi 18 heures la ba 19 heures ndaxte heure match yi nga xamante ne moom mooy am ci heure boobu moom moo tax programme nag moom mooy tëddee noonu loolu moom moo tax léegi nag topp leen ñu ci li nga xamante ni mooy 18h ba 19h ngeen teewlu ci seen émission bu mag bi ni ma koy waxee saa su ne am mbégte jàkkaarloo waat ak téléspectateur yi nuyu kilifa diine nuyu kilifa aada yi nuyu ñëpp ñu nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan ma delluwaa régie jëri jaay jëri ji situation du jour bi dellu soit ci plateau bi présenté leen invité yi salaamaaleykum mbokk yi ma communiqué bi ministère de la santé et de l'action sociale Téi Bosutalata, Foukifan fukki fan ak juróom janvier Minek, ministère de la santé et de l'action sociale Jotna résultat examen virologique yi Wadjalim. Si ci junni ak Fouk téeméer ak ak test yi ñu def téeméer ak juróom positif ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak ñeent cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak fukk ak ñeent ñi xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ñu ko jëlee wala ci leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëdd kawlax am na ci fukk ak benn Louga am ci juróom-ñeent Touba am ci juróom-ñett juróom ci Richard Toll ak Thiès ñeent ci Dakar Plateau ak Matam ñett ci Jëppal Mbour Mermoz Nioro Wakam Rufisque ak Yoff ñaar ci Diourbel Fatick Kanel Liberté 5 Mbao Rufisque Nord Foire Ouest Foire Point E Tivaouane ak Tivaouane Peulh Ben ci amitié 1 Castor cité Batrin Dagana derkley, Diofior Goltapé, HLM 5 HLM Grand Yoff Kermassar, Kolda Linger, Mamel Mariste Medina, Ngor ouagunay, Usui, Parcelles Assainies Podor Saint-Louis Sangalkam Sokoun, Chilogne, ak yombal téeméer ak fukk ak juróom-ñaar si malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde ñeent fukk ak juróom-ñaari malade ñoo nekk réanimation fukki malade ñàkk seen bakkan bésu démb altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak ñett ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñeent ak juróomi téeméer ak fanweer ak benn wér nañ si juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ñu gërëm docteur Mamadou njaay bu baax a baax ci leeral yooyu ak askan wi nañ koy waxee rek saa ne li nga xamante ne mooy tere yi nañu fexe di ko moytandiku dafay am solo nañuy raxas loxo yi takk maski yi di dox lu ñor loo xamante ne mën naa xaar ñu toog ndax nag fu mu nekk nii feebar bi law na law bu nga xamante ne dafa daal di jékki dayoo ak mesures yi nga xamante ne jëlaat nañ ko yooyu yëpp danañ ci wax tuuti ci kanam mais nag bu ñu présenté suñu invité yi ba pare ñu ma koy waxee saa su ne damay am mbégte di dalal ay jigéen yu mën góor ay jigéen yu jàmbaare euh, ci plateau Takussan moo tax tey ñu daal di fii dalal Maimouna si mu nekk femme développement fële ci la nga xamante ne mooy Wakaam Maimouna ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci li nga xamante ne mooy suñu plateau ñu bàyyi la nga nuyoog askan bi waaw macha allah euh, ñu ngi lay fay mm. di la ziar di la jox sa yéegukaay bu kawe sama rakku bopp Astou Fall mm. euh, di nuyu waa Wakaam yëpp macha allah mm. di nuyu dëkkandoo yi di nuyu mbokk yi nag di nuyu suñu yaay ak suñu papa yi di nuyu askanu Sénégal yëpp macha allah mm-hmm. ñu am mbégte ci dalal bi ñu fi dalal ci kanam tuuti dinañ gën a xuus ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan wi ñu dalal fi tamit Hawa Dia moom tamit mu nekk sama turando moom it mu bokk ci femme développement yi foofu ci nga xamante ne mooy Wakaam tey ñoom fi dalal bëgg waxtaan ñoom ci ay ponk Hawa ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci plateau bi ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi. Eh, ñu ngi lay fay di la sant di kontaan ci invitation yi di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa Wakaam yëpp. di sant yàlla julli si yenant bi sallallahu alayhi wa sallam di sant si ñaari waajur sant suñu borom kër yi ñoom yombalal lii yëpp di sant Adja mun a si mi nga xam ne moom laa toogal ni moom xëcc ba indi ma fi yóbbu ma si suñu affaire bu bari moom la kon nag maa ngi nuyu ñëpp incha allah di la sant di la gërëm. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sargal ndax euh, defe naa ne euh, jàngoro ji moom fi mu toll nii doon na loo xamante ne dafa lëmbe réew mi yàq lu baree bari ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi ci côté développement bi dinañu ci wax lu baree bari lan la sookalee seen liggéey. ak yan jafe-jafe lañ ci am dinañ ci waxtaan mais nag balaa loolu yëpp dañ koy tënk ba débrégé ci franc macha allah sama doom bi mu daal di may jox élément ma dellu si waat ci

sensibiliser leen weccanteeg ñoom xalaat ci jàngoro ji nan la ñuy def ba moytu woote bii ma woote tey nag pour rek ñu wax nit ñi li nga xam ne ni constaté nañ ko ci terrain bi ñu war koo jàngat beneen point bi mooy mesure yi nga xam ne nii kilifa yi nekk ci kaw jël nañ ko nan lañ koy appliquer ñun ak lan lañ lan lañ ci yokk fii ci ci suñu région nga xam ne dana méngoo ak réalité aussi région bi. li ñeel respect mesure de protection yi itam kilifa yi waxtaane nañ ko fi ñu wax ne ni force de l'ordre yi itam ñu ngi ci terrain bi di ko xool bu baax. décembre bii rek statistiques yi ñu may jox at weer wu dañ may jox ay statistiques décembre bii rek ma police jox fii rien que Kaolack lu mat juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk nit ak juróom-ñaari nit. interpellé nañ leen ci parce que tout simplement takkuñu masque fu ñu ko war a takkee. am na ay recommandations yi nga xamante ni comité bi joxe na ko mu wax ne ni nañuy teel a yóbbu cas suspect yi ci l'hôpital yi. am na leneen lu nga xam ne aussi lu am solo la te moo ñu xaw a sonal fii ci région bi mooy ku nga xam ne nii dafa feebar di toog di toog këram di toog këram di toog këram du gis docteur. du gis infirmier du gis kenn toog këram ba jàngoro ji ëpp ko doole nga xam ne presque buy ñëw rek dafay ñëw rek presque presque presque maa day taali pour nekk bakkanam loolu je crois que euh, war nañ ko moytu loolu dinaa ci insister bu baax ñi ñi dégg ko yeneen i acteurs yi nga xamante ni dugal nañ leen ci xeex bi mooy kilifa diine yi ndax ñoom mën nañoo wax ak askan bi activité yi ni mel nag amal nañ ko ngir rek yeewandi askan bi ci feebar bi di Covid 19 am na ay masque yu bari yi nga xamante ne nag gouverneur génne na ko joxe ko ci département yi di Kaolack Nioro ak Guinguinéo ñu gërëm ko bu baax a baax Claire na macha allah sama rakk jooju mi foofu ba kaw lax liggéey liggéey bu rafet bu mucc ayib ñu sargal ko ci euh, defe naa ne seetaan ngeen li nga xam ne moom mooy euh, élément bi euh, ñuy waxtaanee xam nga femme développement buñ ko waxee liggéey moo tax ñuy wax yëngu-yëngu moom moo tax ñuy wax mais nag mbas mi dafa mbas lu baree bare indi ay gàllankoor ci li nga xamante ne mooy réew mi kon mun nañoo dugg ci mbas mi dugg ci liggéey bi ñaari mën na nekk loo jàngatee élément bi ak feebar bi fi mu toll. waaw awa. Mhm. ñun tey dañu rafetlu invitation bi. ndax femme de développement boo ko invité ci vraiment ci digg devant la télévision. Mhm. loolu kooku dafa war a wax lu ñëpp mën a jëlee jàngat ak xam-xam. dëgg la kon tey bu ñu egsee tamit nga invité ñu. vraiment ci mbas mi. Mhm. ñu déglu nag ñëpp xam ne àdduna fii ñun Sénégal ci kilifteef la ñuy dox. yàlla indi fi nag son excellence le président Macky Sall muy suñu kilifa nag kon bu waxee ñëpp war nañ ko appliquer. ndax nag man gis naa ne duy waxantu. kon bu duggee ba wax ci mbas mi wax ci feebar bi te muy lu ñuy dund lu sérieux day jaadu ñun femme de développement yi ñu appliquer ko nag à la lettre ndax ay citoyenne lañ nag avant tout. la kon nag citoyenne boo nekkee sim réew. Mmh. sa kilifa rek appliqué te xam na day bañ lu ñu lor day jaadu ñuy raxas loxo yi ba mu set asu day jaadu ñun ñi nga xam ne dañuy def ay calebasse suñu kër yi jigéen ñi di dugg ñëw di indi seen i ndénkaane yu jëm at ñuy wut gel yi di jël masque yi suñu kër yi di ko teg ku ñëw takkoo masque ñu jox la ñun de ci loolu la ñuy dox astu kon bu ko recommandé rek euh, dañ koy sant di ko gërëm di ko wax ne ñu ngi ci macha allah macha allah awa gis nga li nga xamante ne mooy euh, élément bi ñu wax ci covid bi ci région yi mais fi mu ne nag Dakar moom moo jël raw gàddu gi gis nga saa yu ma mm, ah, docteur Mamadou Ndiaye waxee doon na ci li nga xamante ne jàngoro bi yéeg na yéeg bu nga xamante ne ku mu tiitalu rek ah, macha allah defe naa ne bokkoo ci li nga xam ne mooy ah, askan wi kon yow noo ko gisee ak noo ko jàngatee. macha allah feebar bi de fi mu nekk nii moom. sonnal na ñëpp maa ngi ñaan nit ñi rek ñu dëgg ndigal président dëgg ndigal ñii di docteur yi ndaxte feebar bi mu ngi fi ku nekk def lu mu man ñu xeex mu gaaw a jóge fi ndaxte sonnal nañu lool surtout ñun ñi nga xam ne dañ doon voyage di dem jënd marchandise di ñëw di jaay mënatuñoo dem boobu ba léegi kon nag nit ñi nañ si jàpp ñu xam ne lii du kaf du ree nañ jàpp bu baax raxas loxo yi def comme Adja may mën a si wax ñun dañuy kalabaas waaye dañuy teg lépp teg masque boo ñëwee da nga takk force boo takkulee da ngay dem ndaxte lii moom du caaxaan nañu góorgóorlu ñu xeex ko mu gaaw a jóge fii ñu dellu ñu dellu si si nga xam ne ne si suñuy liggéey mu gaaw mm-hmm. ndaxte euh, affaire bi commencé nañu sonn doy na waar doy na waar commencé nañu sonn lool nag sonnal na askan sonnal na askan wi mm-hmm. sonnal na lépp fu mu nekk ni moom mm-hmm. macha allah euh, macha allah def naa ne may euh, Maymuna def naa gis nga li nga xamante ne moom mooy mesure yi mm. mesures yi ñu indi woon lañ ca tegoon ba tey teggi wuñ ko wax nga ko sànq si say de wax tënk nga ko mooy raxasu bi rassemblement yi euh, li nga xamante ne moom mooy xew-xewi xew dugalante yi ak génnalante yi yooyu nga xamante ne mooy tere yi lenn lañ ci tegge woon muy couvre-feu bi te indiwaat nañ ko mhm. te boo gisee ñu indiwaat ko tamit fi jàngoro ji tollaat mhm. moom moo tax bi fukki fan yi ak ñaar jàlle gisaat nañu macha allah euh, ministre de l'intérieur démb fii ci RTS mu ñëw waxaat ak askan wi ne dañ ciy dolliwaat yeneen juróom-ñetti fan mhm. ak lu mu ci munti doon na askan wi xam ne ñoom la ñuy protéger te président de la république am na droit protéger askanam parce que moom la ñu yëlif moom la ñu jox kilifteefu askan wi kon il faut que mu protéger li nga xam ne mooy askan wi loolu moom il faut ñu wax ko ci li nga xam ne mooy mesure ak yéen liggéey bi ndax bu buñ ne femme développement dajaloo dafay am rassemblement dafay am euh, jaay ak jën ak jaay beeg yooyu yëpp dafa ciy am mais bi mbas mi ñëwee ak léegi yéen naka ngeen ko dundee waaw astu laaj nga ñu luñu sawara tontu ndax nit boko invité si yëngu nga laaj ko ci domaine bobu da ci sawar macha allah waaw mbass mi nak dañuy japp ne febar bu yalla indi la nattu la ñun ñëpp nak ñi ngi ñaan ndax ay julit lañu macha allah yàlla na fi yalla teggi nu mu gëna gaawé wayé ñu ngi koy yek ndax xam nga ñun li ñuy liggéeyé moy regrouper femmes yi ndax dañuy dugg ci développement moy xex ndol bi ne ci dëkk bi ndax nak asu day jaadu boo nekkee cim réew. awa mhm. awa day jaadu. boo nekkee si askan wi ci réew mi. Mhm. ah ngay liggéey loo xam ne ci développement la mooy jàppalante suñu biir ñun suñu métier jiyaat la jaamu yàlla. dëgg la dégg naa démb première dame wax ko. ndax maa ngi koy seetaan day saan mu ne day jaamu yàlla. Mhm. wax na dëgg. femme de développement. jiyaatkat la day jaamu yàlla. ndax mooy fëgg bunt bi nga xam ne kooku ma nga toog këram mhm. bëgg faj soxla mënu ko mhm. mu génne ko ci biti ne ko am jàppal ci lii dama liggéeyi nga ñëw remboursé ñu xool di leen dencloo di leen épargne loo mhm. bu tabaski jotee ñu toj jël jox jigéen ñi ñu yóbbu ci kër yi jàppale borom kër yi nga xam ne mënuñu leen a fay nag ginnaaw yàlla kon boo ñu invité tey mhm. dañuy sawar te yàkkamti woon ko macha allah ndax woo nga naar tey si buuxante macha allah ci développement <laughs> baadu tey bii naar moom du moom dongoy guux soow mi nee nañ duñ ko bàyyi ak man waane mayit macha allah dinaa ko joxanteeg ñoom rek ba ma muy jeex euh, defe naa ne comme wax nga ko sànq ci li nga wax muy seen liggéey mhm. mais naka ngeen koy doxale actuellement comme rassemblement yi ñu tere te defe naa li ngeen di dox mooy jàmm ci réew mi mhm. ki nga xam ne mi ngi yokk koom-koomu réew mhm. koo kenn mënu ko fay mhm. mais naka ngeen di actuellement ngeen di gérer seen seen li nga xam ne mooy seen calabas di wax ak yooyu naka ngeen koy gérer bu fekkee dafa am tamit fu ngeen koy jaarale comme joxukaay xaalis buñ leen tudd ndax kenn leen publicité mais mën nga ñu expliquer li ñuy dund moom dinañ la ko wax ni ñuy defee ici dinañ la ko wax calebasse yi moom dafa wër àdduna gis nga démb première dame sax am na ci dégg moom moom moom itamit macha allah kon Nous ni ñuy pas. instant bi ñu Covid bi mhm. mhm. mais 4 personnes yi bi rek nous nit ñi ku ñëw dañ lay gel. Mhm. masque ñu jox la nga nous ñu bindal la dem. duñ fa fekkante duñ fa fekkante. boo rek da ngay dina nga sa loxo ñu la masque masque. masque parce euh, gaw ma woon feebar bi mhm. waaye léegi xam naa ni réalité la moo mhm. tax foo ma fekk maa ngi ak masque bi mhm. di ko yor te loolu son son excellence le président Macky saal mun na tëdd tranquille xam ne euh, sénégalais yi fi ne xam nañ ne feebar bi dëgg la nag euh, balaa ngay laax jaay nag nga laax lekk comme moom mi ngi ñuy sàmm nañ sàmm suñu bopp ba pare am na waaw asu moom defe naa nag xolam dina sedd foofu mais si développement bi quand même Calabas yi li nga ci wax rek ñi ngi daje mais pas nañ daan defee avant dañ daan toog ñun ñëpp dajaloo si kër gi mu xumb ku nekk dindi stress. dëgg la ndax si lañ si jublu. Mm. waaye léegi amatul da ngay ñëw joxe sa xaalis ñu mm. bindal la nga dem sa moroom ñëw ainsi de suite noonu lañ koy liggéeyee. Mm-hmm. Ah, suñu njaay mi ñu doon jaay tamit suñu biir xam nga léegi macha allah léegi nit ñi dañoo développement bi léegi. Mm-hmm. Euh, dafa dañ ko dañ ko euh, jël ba nga xamante ne léegi mm-hmm. suñu jaay yëpp dañ ko def vente en ligne. d'accord. en ligne. vente en ligne waaw. parce que dañ koy dugal ci Facebook bi dañ koy dugal ci Facebook bi dugal. boo soxlaa très bien boo soxlaa da nga def sa commande mhm. soo defee sa commande nit ki da koy gis mhm. rek nag euh, bu ko defee livreur yi ñëw yóbbul la ko kon daal yéen boo xoolee ne mbas mi mi ngi ci réew mi mais yéen ba mu ñëwee ñu def ay tere jël ngeen beneen système bu nga xamante ne noonu ngeen di liggéeyee mm. pour que di doxal li nga xamante ne mooy seen développement te indiw leen ci benn coow waaw ah man de gisuma si coow mhm. ñun bi mu ñëwee rek mm. xam nga nit ku nekk façon bi egsi mm. da ngay dem ci boobu boo demee sim réew fekk ñëpp def yaramu neen mm. def ko mm-hmm. rek da ngay am jàmm dëgg la foofu daal lañ ko gisee moo tax dañu changé suñu façon de <laughs> faire mu doon am solo da ciy am solo parce que defe naa ne bu ñu demee ba nga xam ne toll nañ ci réew am foo xamante ne jàngoro li ma koy waxee mbas mi du mbasum kenn mbasum suñu borom la subhaanahu wa taala moom moo ko wàccee ci réew mi àdduna sax laay wax wërngal këpp mm. teg ñu ko mënuñu ci dara président Macky Sall mënu ci dara mm. kilifa diine yi tamit ñaan lañ ci mën ak digle ay sarax pour que ñu def ko comme ni ko sëñ Mbaye si Mansour waxee mm-hmm. Mm-hmm. ak xalif général des Mourides moom ta mm-hmm. wàcce loolu fi woon ay kaamil ak yeneen kilifa diine ñi ngi fi ñoom loolu mooy seen rôle loolu la ñu def président Macky Sall liy mooy jël ay charte ci réew mi teg ko ci réew mi kon nañu fexee ñu appliqué loolu buñ ko defee yàlla mën nañu musal ci li nga xamante ne lu baree bari la xawaa defe naa dégg nga li nga xamante ne euh, kii wax na ko nu mu tuddati euh, may Maymuna Maymuna wax na ko euh, ci li nga xamante ne moom mooy seen côté liggéey parce que mbass mi xam nga fi mu tollu ni surtout jamono yi ñu tollu ni dafa gëna am tolof tolof nit ñi ñi ngi dem waane tiitaanga la ñi dem mm-hmm. nit ñi ñi ngi dox waane tiitaanga la ñi doxé mm-hmm. laaj na ko naka lañ ko géré mm-hmm. ak naka ngeen di def ba nga xamantene développement bi gis ngeen ne dina gëna mëna dem te nit ñi duñu lool parce que rassemblement yi rek la ñuy bañ lool mom dëgg la rassemblement yi la bañ te ñun fu ñu nekk ni dañ ko tek ci suuf ñaari nit duñu ñëw tok suñu ñeenti nit ñu sakk ñu sëkk calebasse bi takk seen masque ku nekk may sa moroom morom distance bi nga xam ne ne un mètre la lu mu gàtt gàtt ku ñëw dañ lay jox zel nga joxe sa li ngay joxe ñu bind nga dem keneen dugg noonu fu mu nekk ni moom si loolu ñoom ñëpp nag nangu nañ ko jigéen yëpp nangu nañ ko nañ ko xam ne ne lii jigéen yi rek ñoo si mun a jàpp mu dem ndaxte jigéen yi ñooy njaboot ñooy ñooy ñoo yore kër yi ñooy ñoo mun a wax ak xale yi ñoo mun a wax ak borom kër yi kon nag ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dañ ko nangu jigéen ñi moom amuñu problème yooyu dañ ko nangu waaye nag sonnal nañu ñun ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla gaaw ko tëgg fii ñu am ñu delluwaat si suñu suñu nekkoon waaye moom macha allah. parce que dañuy xool mbir mi du économie gu Sénégal kese la téye. comme comme adduna bi yëpp bi yëpp la téye. Mm-hmm. te de gis nga tey boo xoolee nombre yi nga xamante ne. mooy dee ci la nga xamante ne moom mooy biti réew moom mooy nombre yi nga xamante ne moom la ñu am pour feebar te defe naa ñaanuñu yàlla mbir moomu egsi fii ndax defe naa ne boo xoolee ci la nga xamante mooy seen capital kese kese kese euh, day tolloo ak li nga xamante ne mooy sunu 16 millions de sénégalais yi kon dañoo tuuti ci li xamante ne euh, moom mooy biir monde bi ba nga xamante ne dañu war a sauvegarder yenn ba yenn yi warul egsi ci li nga xamante ne moom mooy réew mm-hmm. loolu moom dëgg la loolu moom dëgg la ñaanuñu yàlla saa yooyu agsi fi ndax bu agsi fii rek ñun dañuy jeex mm-hmm. waaye comme ñu ngi taxaw nag jigéen yëpp ñu ngi taxaw mm-hmm. takk seen sër di xeex ak feebar bi xeex feebar bi guddi ak bëccëg di toppatoo xale yi di def lu ne ndax feebar bi jóge fii mm-hmm. attanuñ ko ñun wax dëgg yàlla attanuñ ko mm-hmm. kon nag nañ si wax suñu rek ñu ñaan yàlla suñu borom mu gaaw a teggil ñu lii lii moom na fi jóge rek <laughs> na fi jóge dem yoonam <laughs> ñu mun a delluwaat suñu activité yàlla xam nga mbir mi comme ni ñu koy waxee rek. du doon xeexu kenn day doon. xeexu ñëpp la xeexu ñëpp la mm. parce que bu ñu foogee ne nguur kese moo ko mën a dindi parce que tey maa ngi dégg am ku ma dégg ci benn rajo muy wax. mais sénégale yenn saa yi dañu conscient wu ci ñiñ ko sañ a wax. Mm-hmm. koo xamante ne yow yaa ngi wax. Mm-hmm. nga ne yow da nga doon kaddu yor kaddu ci réew mi te nga ne da ngay wax mhm. te booy wax ci mbas mi doo ko waxee ni nga xamante ne noonu la waree mhm. Mhm. parce que couvre-feu bi nga xamante ne renouvelé waat nañ ko euh, ñi ngi ciy wax te xam nga man lu ma gën a jaaxal mais nag du ma war a jaaxal tam ci benn côté bi parce que alxuraanu karim benn la te sunu borom moo ko wàcce te yenn saa yi nga gis ci ay weddante kon li nga xamante ne euh, constitution la tubaab bee ko bind wala juris bi moo ko bind ba nga xamante ne xaw ma kan moo ko bind ba nga xamante ne tey ay waxantu yi mën na ci am loolu waruñu mën mën a mais ki nga xam ne mooy toog Sénégalais yëpp di ko déglu mu naan couvre-feu bi amul njëriñ ci réew mi mesures yi amul njëriñ ci réew mi ne président bàyyi nit ñu dem doxi seen ay soxla genre nit yooyu soo leen déggee en que yow muy dox ci koom-koomu réew nekk jigéen nekk yaay nekk référence lan ngay wax ñooñu waaw awa mooy li ma la wax sànq rek dama ne la xam nga kilifteef nit day am kilifa mhm. boo ko seetloo sa doom bu juddoo toll ca sept yaroo ko bu màggee jaaxal la ni nga bëgg mu mel ko wala mu koy waxee du ko def. dëgg la moo tax euh, juddu dafay am solo si nit yar aussi dafa am solo si nit day am yoo xam ne ñun dañ koy jombale suñu bopp. juddu ba la. juddu jikko da waaw juddu hmm. jikko da koy gunge. moo tax juddu bi bu amee solo rek dangay ngay tranquille hmm. xam nga bi may ubbi dama ne la. Hmm. kilifa réew mi. bi mu toogee wax. ñun dañ koo déglu. ndax ay citoyen la ay jigéen lañu. ñun ñoo moom njaboot gi. ñun ñoo moom njaboot yi si kër gi kon buñ ko ci jàppalee da ciy génn man day xam nga lu ma jaaxal awa mhm. xanaa lu waay di dox nag ba vingt war ngaa mën a ñibbi sa kër nag bu dee mhm. du liggéey de laa wax mhm. war ngaa mën a ñibbi dem tëddi xanaa ma jàpp ne man dérangé wu ma léegi laa lay laaj heure bi ndax dañ koo changé wala dañ koo yokk <laughs> bàyyiwu ma si xel parce que bu timis jotee tëj naa sama place maa ngi sama kër bu ma génnaatee suba si jàmm la kon loolu laay gëm ne ñëpp moom la ñuy doxee ba tax na am na ci ñoo xam ne dañuy ñàkk xam la mooy li ma la wax rek ñàkk xam xam nga yar dafa am solo nday ndeysaan mm-hmm. éducation de base mm-hmm. day topp nit ba mu màgg euh, am na nuñ lay yaree rek yow foo toog rek dafa nga ne foo tojul rek euh, baaxul boo waxul wax ju rëy rek dafa nga ne nit ñi déglu wuñ la mm-hmm. fekk jàllalewu la gis nga gis nga euh, le silence dafa am solo ça tue moo tax nañ jàng nag di noppi ak di déglu kilifa bi parce que amalu ko njëriñ muy tere nit ñi ñuy deel a tëddeeg yooyu amalu ko benn njëriñ. Mhm. kon bu ko waxee dafa ñuy aar parce que mooy kilifa gi nag. Eh, ba pare boo xoolee ci moment yi nga xam ne couvre-feu day am agression yi dañuy wàññeeku. Hmm? càcc gi day wàññeeku mhm. loolu yëpp dafa doon maa ngi ko doon dégg si beneen euh, comme ni ñu koy waxee rek ñii dañuy wax li ñuy wax le le mhm. euh, kooku nee ne même bu fekkente ne sax du mbas moo am ci réew mun nañu toog ba jëmmi jamono président war a mën a génne benn décret bu nga xam mën nañu def couvre-feu pour ah. aar askan wi ah, ah, pour li nga xamante ne mooy protéger askan wi mm-hmm. euh, defe naa ne journaliste bi ma jàkkaarloo Adja Fassa defe naa ne war na ci xam ci yooyu ponk yu baree bari yi nga xamante ne moom lañ ciy wax kon bu fekkee loolu charte yooyu war na mën a am mm. mbas am ci réew jaaxal adduna bi ñëpp fi mu nekk ni ku grippe tiit nga ku soj tiit nga mm-hmm. xale yi dem di jàngi mm-hmm. tiit nañu ndax ñun souhaité waatuñu benn yoon ko école bi tëj te nii mbas mi continuer bu ko arrêté wul lii raam ca ñag bala jëm ca ñag bala jëm. ah soxna wax nga dëgg de mm. léegi nii rek maa ngi ciy waxtaan ak sama borom kër gu baax boobu nga xam ne ndeysaan mm. lépp moom la Njaay jaata yàlla na ko yàlla bàyyi fii mu gudd fan loolu te wér alaaji Papa Alassane Ndiaye léegi lañ ciy waxtaan manaan ko mm. masque yi ban signe la la jox mm-hmm. muy ree ma ne ko man de signe noppi la ma jox masque yi pour nit ñi noppi pour nit ñi noppi mm-hmm. loolu nag lu rëy la de wax la ma ne ko masque yi loolu la la jox mu reetaan waxul dara ma ne ko masque yàlla dafa ne ñuy noppi. wax ji dafa bari wax ji dafa bari. Mhm. mu daal ne ñu jël masque yi nag. Mhm. boo tëjee sa gémmiñ sa wax dootul bari. Mhm. ma ne ko signe boobu la ma jox. mu reetaan. <laughs> ne ma yaa may mun a lee ma ne ko gis nga distanciation yi xam nga lan la. na nañu moytonte. ak dafa sew. na nañuy moytonte gis nga yàlla mi ngi indi ay tegtal nañu moytonte mooy lan. moom mën nañoo baal ndax moom du du lakk kenn macha allah. moom mooy moom moom macha allah du du du du bind jaam ba pare di ko lakk. Mhm. si boo awee ci yoon bim la teg. biñ la teg dëgg la. waaw kon léegi nee na nañu mooy tonte parce que suñu diggante ñun àq boobu. Mhm. ba ñu yeggee fee dañ koy lijjanti. Mhm. gis nga Covid bi li mu indi. nañu mooy tonte nañu noppi. kon jàngat la <laughs> loo ci bëgg a doon xawaa <laughs> jàngat la euh. mooy mooy loolu rek jàngat la wax dëgg yàlla nit ñi dañoo war a boo xamulee nga noppi wala su fekkee yàkka tamit moo la tax a jóg di wax nit ñi dofuñu mhm. boo waxee ne feebar bi amul nit ñi xam nañu feebar yaa ngi fi. Mhm. feebar mu ngi fii si dëkk bi mu ngi rey mu ngi def lu dara jaru léegi boo taxawee si télé nga ne ma nga loolu amul mhm. loolu wax bu yàqu la da sonal sa bopp te du tere nit ñi dañuy def lu ñuy def président Macky Sall dara jaralu ko muy tëj nit ñi si dara ndaxte coono bi si moom la euh, jëm si moom la jëm bu nit ñi bu ñu amulee lu ñu lekk dañuy dellu si Macky ku amul lu mu naan wax Macky léegi Macky dina jël nit ñi rek tànc leen si dara. Mhm. loolu xam nga loolu nopp nopp bu baax du ko dégg. loolu moom nañ nit ñi bàyyi nañ si xel nit ñi xam nañ feebar baax ngi te ñu ngi moytu ñu ñu ngi si ajaamay mun si bu baax bi ñu ngi nii di defar ay masques bu ñu delloo dañuy dem di joxe. Mhm. di dugg si dëkk dëkk bi di wax wax ak xale yi wax ak mag ñi. Mhm. ndax lii moom fokk ñepp jóg jappasi ñu jàppale suñu président mom kessa mënul té mom fièvre bi mëna na am sa du ko sonnal mhm. ñun ñi nga xamné ne ñu nekk si ñun ñoy sonn kon nak dañ koy sante di ko di nangu di nangu ndogal bi mu wax bu mu wax ni kay nangu mom mu doon am solo mm. force de l'ordre tamit ñu leen mhm. sargal leen wa politique gendarmerie ñepp ñi nga xamante ne ñoo ŋànk rek mbir mi ñu ngi leen sargalaat bu baax a baax parce que tey ñu baree bari dañ doon naan du ñu dugg ci banlieue bi du ñu dugg ci li nga xam ne mooy ruqaruqaat bi mais man côté bale ma dëkk boutique sax boo fay nga dem jëndi masque bu fekkee jëndi jowoo masque tam di nga wàññeekuwaat sa kër méttitaluñu kenn nag fitnaaluñu kenn dóoruñu di nga dem nga jënd masque kon ñu ngi leen di sargalaat bu baax a baax ñoom takk der yooyu ndax ñoom ñoo yor sunu kaaraange réew te naka saa su ne ñoom ñi ngi taxaw ci tali. Mhm. nekk di contrôler li nga xam ne mooy circulation bi guddi gi ñi ngi veillé ci ñun kon ñi nga xamante ne noonu la ñuy njukkalee euh, sunu président takk der yi tamit noonu leen di njukkalee jaajëfal leen bu baax euh, sargal leen mhm. balaa may duggaat ci ñaareelu ponk bi ma démarré si jëli beneen élément bi dellu siwaat ci plateau bi ci taxawu askan mi fu ñu mënti nekk ki nga xam ni mooy ministre bi yor pàcc bi ñu jagleel microfinance ak euh, taxawu ñi nga xam ni ñoom ñoo ko soxla dañu amoon taxaw temm bu ñu def ci biir réew mi rawatina fii nga xam ni mooy Bawal ci dëkk bi nag ñu nekk mooy Baba Garage ministre bi indil leen lu takku lu takku buñ koy wax mooy toll ci ñeent fukki. million ñeent fukki millions yi nag bu ñu ko xoolee fukki millions yi ñu ngi jëm ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Baba Garage te seen yitte lu ci bëri lii di mbas mi xawoon ko sooxandil. 10 millions yi ñu indi dina nekk luy jëriñ bu baax ci activité jigéen ñi jigéen ñi parce que jot neen ci wax jot neen ci. Euh, saafonte ba pare xam nañ bu baax 10 millions yi xaalis bi nan naka dañ koy defee te dinañ ko def ci foo xamante ni bis bu suivi amee tamit dinañ gis que def nañ ko ci fu jaar yoon ndax jigéen ñi tamit liggéey la bëgg te 10 millions yi ñuy jot dina leen aider ak mbas bii ñu jógee ñu mën a jógaat bu baax ci seen ay activités. donc ñu amoon mbégte torop bi suivre nag sa tournée partout au Sénégal uh-huh. fépp fi nga dem. ñu gis lépp te fépp fi nga dem tamit ñuy xalaat ndaw yi nga xam ne mooy ndaw Corps Africa yi fa nekk ñu lay wax ci loolu ne ndaw yooyu ne fépp foo mënti dem jàppale fa jigéen ñun ci turu ndaw yooyu jàpp nañ ne jël nañ engagement ne ñooñu dinañ dem xool lan lañ mën a taxawoo jigéen ñooñu lan lañ leen mën a jàppale lan lañ leen mën a doolee xam-xam ak ay compétence technique ngir li nga xam ne alal la joo def mu bañ a nax saay ngir que ñu mën ko fructifier ngir que ñu mën ci def loo xam ne nii dina leen jëmale kanam ba faw parce que li ñuy wax te daf ñu ñor torop. ministre bi nag indil leen taxaw euh, lii di président di leen wax ne leen taxaw temm la ngir lépp lu yàqute te mbas mi indi ko ñoom dinañ ci taxaw te xaalis bi ñu teg ci ñoom pour ñu gën a mën a soqalu seen koom-koom si seen biir gox la. tey boo seetloo euh, fii si Baba Garage euh, kuréel yi nga xam ne ñoo seq centre de polyvalent bi ñu ñëw dafa bari te kuréel yi aussi dañuy jóge ci dëkk-dëkk yu bari ñoom ñëpp ñu boole woon seen doole euh, di liggéey mu am. ay volontaire ak ay ONG yoo xam ne ñu ngi leen duppee Corps Africa ay ndaw ñoo xam ne dañu jàng génn des fois ci université yu mag yi yor seen diplôme mais ne dañuy jël pàcc ci seen temps delloo ko askan wi ñu leen di gunge pour que liggéey bi ñuy def mu gën a taxaw mu gën a mën jëm kanam donc yooyu dañu jàpp ne ay modèles yu rafet la yoo xam ne bu ñu bëggee promouvoir économie sociale et solidaire dañ ko dañ leen war a jàppale war leen accompagner moo taxoon tey ñu ñëw fii ndax depuis salon wu économie sociale solidaire ay partenaires lañ ñi ngi liggéey di ànd te bëgg nañu aussi corps volontaires yi ñoom jël nañ engagement ne fépp foo xam ne jaar nañ fa joxe fa subvention ñoom seeni ndaw danañ fa topp pour gën a mën a euh, accompagner acteurs yi nga xam ne jox nañ ko ça veut que suivi dina am dinañ mën a évaluer li ñuy liggéey pour mën a xam lan lañ ci war a jubbanti parce que tey li gën a yor euh, koomu Sénégal bokk na ci li ñuy wax secteur informel. ñuy wax ne rek ne taxawaayu ministre microfinance économie sociale solidaire ci réew mi yamul ci bawal rek benn pàcc la benn taxaw la te dina law fépp ndaxte kii di président de la république yitteem yëpp mooy fexe fu jigéen nekk lépp lu mu fa yëngu ñu indil ko taxaw temm indil ko jàppale ba lii di mbas mi du nekk lu ko mën yàqal ci koom-koom ga muy am fa mu dëkk ak gox bu mu mënti nekk. ci réew mi. incha ñu gërëm uh, leen bu baax a baax uh, waa régie uh, ba tey rek ñu daal di continuer ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi niñ ko waxee rek sànq ay femme développement lañ fi daal di dalal Maymuna ba tey am na loo xamante ne muy ay ponk nga bugg koo yokk ci li nga xamante ne moom mooy jigéen ñi ngeen wax ñu seen kuréel googu naka la tëddee ak naka ngeen ko forme ak naka ngeen koy liggéey ak lan ak lan ngeen di def ci côté développement bi. waaw la jaat nga ñu nag lu ñu sawaroon a tontu nag moom la ñuy xaar sax lu ñu yàkkamtee woon dégg nag <laughs> te laajaguma leen ko woon <laughs> waaw xanaa rek di la remercier waat nag awa mm-hmm. Mm-hmm. ndax sànq da nga gërëm force de l'ordre yi mm-hmm. te ñun ay épouse militaire lañu kon ñu ngi lay remercier ñu borom kër yi macha allah yal na leen yàlla sàmm taxawu leen ndax nag jàpp nañ ci nee naa la boo nekkee sim réew la sa kilifa wax mhm. dugal ci sa loxo bu dee citoyen nga wala citoyenne kon ñu ngi lay sant di la <laughs> gërëm waaw ñoom ñoo ma yónni seen mhm. jabar moo fi toog tey sant nañ la gërëm nañ la dëgg ma ko waaw <laughs> mhm. léegi nag xam nga ñun nag macha allah euh, damay jàpp ne man développement bëgg-bëgg la xam nga da juddu yàlla di la teete yàlla di la tette waaye di la booleeg ay nit nag ndax ku ñeme rek dañ laa dee ñu ndar xëyul sotti ci loo ne bu dee doom la da nga koy yóbbu ci école yi nga am professeur boo xam ne moo koy jàngal ba mu commencé liir sa xel di dal ñun aussi noonu la euh, yeewuñu rek dugg ci développement euh, soit da ngay judd ci kër goo xam ne da ngay gis sa maam wala sa yaay di doxee noonu day am kenn koo xam ne ca famille ba day ta aw ca tànk yooyu ndax ndox du bàyyi yoonam ñun macha allah suñu maam moo ñu yar waaye dañu juddu gis ko muy def développement booba nag amagul tur sunu yaay aussi nekkoon fii RTS 1 Adja Marie Bousso di dox ci développement nekk centre de bopp di jàngal jigéen ñi coupe ak couture séquelles yooyu moo wàcc si doom yi ñu bëgg ko gëm ko ah famille bu nekk nag day am ñoo xam ne ci lii la leen yàlla xiir ña ca des yàlla xiir leen ci lee waaye ñun euh, vraiment séquelle bi si ñun la wàcc ñun ñaar lañ ci nag ci kër gi eh, dañu woote émission te xam nga ñun ay jullit lañu eh, li ngay liggéey bu ci amee ñu dugal seen loxo ba nga am ci xarañ ba mën a toog fii di wax sénégale yi di la dégg mm-hmm. day jaadu boo toogee nga tudd leen eh, ñu tudd tey di remercier suñu mag yoo xamante ne moo ñu jàngal mm-hmm. moo ñu teg ci yoon moo ñu uuf tette ñu ba ñu ñemee toog fii tey jàkkaarloog yow mm-hmm. ngay wax ñuy tontu muy le ministre Anta Sarr Diacko moo ñu jàngal développement waaye dafa fekk rek garab si kaw lay fekk fekkante dëgg la waaw. madame la ministre ñu ngi koy nuyuwaale bu baax a mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kooku développement la gëm. moo tax ñun ñoo ko géré loon. réseau waaye foofu la ñu amee inspiration. ba jël sunu GIE. femme de développement. balaa nga ciy dugg da ngay am këyitu GIE. femme développement te amoo ay kayit tubaab kayit la xam. dëgg la da ngay wut say këyit. teg di jàng nag lim ñu jàngaloon mooy développement ñuy partagé. ñuy yërëmante suñu biir ñuy dimbalante sociale bi ndax xam nga mm. moom yàggul li ngi mm. nekkoon ci sociale macha mm, allah kon li may wax xam naa ko te gëm naa ko mm-hmm. ci deretam la nekk euh, moo ñu ko teg foofu nag ñu yàgg ci lool mm-hmm. ba maîtriser ko mm-hmm. biñ ko maîtriser aussi ñu dugg nag ci calebasse yi ñu ne dimbalante bu njëkk ba dañ daan dimbalante suñu biir mais du am mucc ndax amul suivi ndax informel bi lañ toppoon ba suñu dara baaxul dañ daan jël rek xaalis parce que femme de bu fi toog tey am na partenaire. Mhm. partenaire bu lay accompagner. parce que nag munoo nekk sim réew nga ne da dimbalante sax say moroom. Mhm. nga jël lépp jox ko état. dëgg la kon yow jàppale woo son excellence. bu dee da koy jàppale. Mhm. da ngay dem nag wuti ndimbal. foo xamante ne du ñaan te du may ñun dañu am ay partenaires. ngeen di liggéeyandoo yu ñuy liggéeyandool. muy IMSEC. union mutualiste d'épargne et de crédit. Mhm. bu Sénégal IMSEC. Mhm. mooy suñu partenaire. ñun foofu la ñuy jëlee xaalis. Mhm. mu jox ñu ko ñu jël ko di ko jox calebasse yi jigéen ñi boo amee sa calebasse. dañuy ñëw ba mu wóor nañu di calebasse la. ñuy liggéey ak yow di la jox ay denrées alimentaires. gis nga ñu defaat partenariat ak ku tudd gàdd gi. fa la ñuy jëlee tigatege si moom. jël euh, produit café Touba ci moom. yaa ngi gis jël ay ginaar si moom. daal di am suñu ceeb bopp nag. suñu ceeb lépp daal ci seen biir suñu biir lañ ko def waaw ñaanuñu kenn ngeen di jëndalante encore suñu biir mhm. di jox jigéen ñi ñu koy ci kalabaas buñ ko jëlé mhm. bu wër bi déwé nga xol sa ravitaillement mhm. li nga manké mom ngay laaj mom lañ lay jox bu ko défé chaque semaine bo ñëwé di épargner si da ngay fayalé ndànk-ndànk ala koku yaa ngi dimbali borom kër bi hein ah? ñun non lañuy liggéey forme bobu lañ ñu tek ci lañuy liggéey aussi ah, bu mutuel bi ñu défal Euh, convention. Mhm. su ñu joxee xaalis dañ koy jël dugal ci calebasse yi ndax avant dañ daan jël xaalis yi si banque yi jox ko jigéen ñi xam nga li may wax du am suivi. Mm, dëgg la parce que dañuy jël soit ñu am yëre bu ñu bëgg a jëndi dem jëndi ko. soit ñu am or bu ñu war a jëndi ñu jënd ko fay bi ñëw indi problème fekk loxo yi demeewul noonu macha allah doole bi mm. néew na. Mm-hmm. ñu génn nag si méthode boobu mooy informel bi. Mm-hmm. léegi ci calebasse yi la ñuy def financement yi gis nga boo ko ci defee xam nga chaque semaine yaa ngi may dénk sa xaalis. ma waree fay ñëwoo fu may fag ma dénk. Mhm. kon xanaa mutuelle bi du toog ba ne ma eh kaay fay du am. parce que ñun instant bi mutuelle yi la ñu gis moom ñoo fi nekk ñoo ñu mën a dimbali. ndax mhm. état mënul def lépp. mënul def lépp dëgg la. am nañu kilifa. Mhm. muy muy le ministre de la femme. Ndeye Saly Diop Dieng. mi ngi def lu mu mën. mais mënu ko wërale da ngay am sa yaay sax mu jur la mm. te lépp mënu ko matale ci kër ga xalangu dajul suuf bu mat xam nga xalangu dajul suuf mm-hmm. bu ko defee nag dañuy jéem nag ku ci nekk xool ni ngay tojee sa bopp janax mm-hmm. pour jàppale leen ñoom mm-hmm. te gis nga nag jàppale nit balaa muy gën a neex fekk mu nekk ci dara dafay am ku ma koy wax daf naan ma sooy leb même bu fekkee cinquante mille ngay leb fexeel yor vingt mille mm. boo yore loolu ki ngay leb xelam dina dal ndax dina ne ah comme ki yor na vingt mille mën naa am yaakaar dina ma fay waane boo yorul dara kenn du la leen fekkee ci seen calebasse fekk ngeen nekk ay femmes développement comme ni nga xamante ne noonu la ko may mën a waxee ngeen nekk ci li nga xamante ne mooy seen secteur mm-hmm. tey madame la ministre mën na dem ba nga xamante ne mbir mi egg na ci moom bu leen fay fekk da leen di dolli rek mu gën a neex mm-hmm. waane du leen fekk ak zéro mm-hmm. euh, lan nga ci bëgg dolli waat ah, waaw loolu moom dëgg la euh, ñun daal ñu ngi si comme li ajaa may mun si wax rek waaw ma répété waat ko rek xam naa ne comme ñoo bokk liggéey bi ndaxte bu njëkk bi dañ doon dem imsek moy suñu partenaire. mu jox ñu ñu ñew nga yeeram jigen ñi lool jigen nga da ngay xam da nga xam lu nekk si biir kër gi nga jox leen fay biir num nak ñew nekk problème xam nga nit da ngay jangat bo démé ni ki bu benen yone da ngay xol li nga li nga defoon lan la légui ñu jël calebasse yi ñu tek comme tek nañu yi da ngay ñew di épargne mhm. sa xaaliss mu ngi fa waaye loolu dinañ leblante suñu biir waaye munul faj soxla yi yëpp. Mhm. UNICEF bu ñu joxee ñu jox leen. bu ñu leen joxee bu weer deewee ñu ñëw ku ñëwul tamit am ndog day am. Mhm. bu fekkee am na ndog dangay ngay jël si lu mu am foofu rek nga dem. Mhm. nga fay euh, da ngay gis nag ndeysaan jigéen yi ñun dañoo sonn de. dëgg la <laughs> dañoo sonne dañuy leb waaye leb bi da koy jox nit mu yaakaar na saa da nga kaa da may. ndax fi nga te yàlla xam ne ne. leb day jël fay. fay waaye fi nga ko fekk amul amul ki nga xam ne ne dakay jàppale si loolu bu ko amee rek si saa si day yaakaar na day yaakaar ne saa da nga da nga ko may teye euh, du may waaye yaa ngi koy jàppale moom comme moom mënul dem lijjanti loolu yow nga lijjanti nga ñëw nga bokk ak ñoom. Mhm. waaw na waaye ndimbal nag na na na fekk loko si lokal borom. la nekk dëgg waaw mhm. ñun nag dañoo commencé di door ku ñëw ñun fu mu nekk nii. Mhm. dañuy dolli rek ñu dem. waaye am nañu fi nga xam ne nag mën nañ ko jàppandi. Mm-hmm. loolu moo ci ëpp solo. Mm. fekk la nga am loo xam ne ci nga jàppandiku. Euh, macha allah comme moo wax na ko sànq xawaa junj na ko ci biir waxam ndax yenn saa yi fa ngay cofee ay laaj pour mun koo daal di delloowaat. Mm. wax na ko ci mbirum nee na jigéen ñi des fois ndeysaan nga leen di fekk ci coono. Mm-hmm. ñu doon loo xamante ne dañuy sonn parce que xam nañ ne jigéen ñi man ni ma koy waxee saa su jigéen ñi nee naa leen ñoo mën góor ñi man mm-hmm. moom dama ko wax jigéen ñi laa àndal mm-hmm. góor ñi nag ay jàmbaar lañu ñoo suñuy papa suñuy borom kër suñuy xarit suñuy lépp mais jigéen ñi nag ñoo leen mën parce que njàmbaaru jigéen fii ci Sénégal foo ko takk wees na ko ci suñuy yaay lañ ko tàmbalee di gis ba suñu joon yàlla tey ñu teg ci suñuy tànk di fexe di takku di di am lu nga xamante moom la ñuy def mais yenn saa yi ngeen dem def engagement dem jël bor. Mhm. andi ko. Mhm. tasaare ko jox ko jigéen ñi pour dimbalee ko mhm. mais des fois tam ngeen am ci ay jafe-jafe. waaw waaw loolu lu ñu dund la aw. <laughs> laaj nga ñu lu ñu dund. Eh, ndax ndax nee naa la ñun benn partenaire la ñu am. muy IMSEC. gis nga booy liggéey ay jigéen. foog nga yërëm leen jigéen ñi nañuy xool fu ñuy dugg ci partenaires yi. da ciy am solo ndax daf ciy am ñoo xam ne mhm. seen vision mooy accompagner jigéen mhm. te ku jug pour accompagner jigéen mhm. yaa ngi ciy séentu lu ne rëkk-rëkk yeeg fay bu tardé beeg fay bu ñëwul beeg kooku góor gu am yërmande rek moom nga mën a defal partenariat bu problème yi ñëwee mu accompagner la li nga ma laaj nii dama koo dund ndax am noon nañu financement boo xam ne bi ñu ko joxee jigéen ñi dafa tomboon période campagne nit ñi daal di koy politiser euh, fay ba mu neex leen ne foofu la ñuy yem waaye xam nga boo dëkkee si dëkk te bëggoo lu ñaaw mhm. ndeysaan te nga ne femme de développement nga mhm. te waruñu ndax ñun ay exemple yu baax lañu ñu war a wane ci réew mi ah, dangay ngay ma préféré maye patt gi rek mhm. te seetiwaat leneen ah, daloon nañu waaye bam ñu dalee ñun suñu partenaire directeur bi Ousmane Thiongaan dafa yërëm jigéen dafa ñëw indi ndimbalam fañ ko soxlaa dafa am solo booy liggéey ak nit bu lay dimbali na la dimbali fi nga ko soxlaa. Mhm. bu mu xaar nga koy oo di ko ko wax. mooy bi nga xam ne ne fayatuñu. bi instant bi ñu fayatul. Mhm. xam nga foofu moom banque bu la lebalee fayatoo waratu laa lebal crédit. dëgg waaye ñun nee naa la sànq dañoo am présidente bu xarañ. Mhm. mu teg ñu si yoon. bi ñu indee dugal benn kayitu GIE. mu am tuuti problème dañu jëlaat suñu kayitu GIE biir kii dugalaat ko. waaye nag mu indi ci ndimbal bu am solo génne ci waat financement fekk nag. ja am nañu jàngat léegi. Mm-hmm. si la ñu commencé jël xaalis nag du ko dugal ci calebasse yi. parce que chaque semaine di nga ma indi sa épargne dañu oh. changé méthode. Mm-hmm. xaalis boo ñu mën a jox si calebasse yi lañ koy def. Mm-hmm. ñu ngi may dégg. te xam naa tey bu doon. Euh, dinañ ko seetaan euh, ñi ngi seetaan dinañ xam ne ci dëgg rek la ñuy dox. Euh, léegi ñun ci calebasse la ñuy dugal financement yi. bu ko defee chaque semaine bu ñu nattee dañuy jël natt boobu. au lieu ñu téye ko suñu kër ndax wóorul xaalis kenn du ko denk ci kër. nga dem yóbbu ko si compte bu calebasse bi.

waaye fi nga toogoon rek nga toog fa ka lay dimbali bu yàggee sax day taxaw day toqi mm-hmm. Mm-hmm. ah ñun nag yàlla dimbali nañu instant bii daal ñi ngi si mm-hmm. calebasse yi ndax loolu lañ ñu sant te gis nañ ci nag rentabilité te effectivement li ma lay wax ni lu ma xam la parce que réseau IMSEC réseau IMSEC bi. Mhm. femme liberté 6 man maay seen présidente man mii mhm. toog. Mhm. te ci calabas yi la ñu accompagner femmes yëpp actuellement. mais macha allah liggéey bi mi ngi avancé. ñu ngi ciy gis yokkute. ñu ngi rek moo ci am solo. jigéen ñi ni ma koy waxee saa su ne bu ñuy liggéey nañuy fay. parce que tamit xam nga ñu jël xaalis lebal la ko pour que nga dem liggéey nga jël xaalis boobu noonu dem jëndee ji ko ay ginaar wala jënde ji ko ay yére. sañse yooyu yëpp baax na mais boo liggéeyee ba am bénéfice li nga xamante ne mooy li nga bëgg noonu di nga ko mën a am mais li may wax ndénkaane jàmbur ak leble jàmbur du alal mhm. ndax ñaar yëpp delloo la laaj mhm. mhm. awa waaw wax nga dëgg ñaar yëpp de delloo la laaj euh, jigéen yi nag ñu ngi góorgóorlu waaye lu waaye lu manque si jigéen yi mooy épargne bi loolu moom te ñu ngi si dox fu mu nekk ni dañ si taxaw xar suñu tànk tubéy taxaw si épargne yi ndax jigéen yi ñu denca dara bu ñu denculee dara duñu ñu génnee dara. loolu nag fu mu nekk nii dafay métti nag. pour nga dindi leen rek bu ñu tojee yóbbu seen xaalis ñëpp rek ñëw toogaat boo lebal nga lebal leen ñu fay génnaat loolu dina métti waaye ñu ngi si taxaw bu baax a baax a baax. xam naa bu soobee yàlla dina changé ndax bu ñu demee ba juróomi ñu mun a am lii ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñu demal suñu bopp. ndaxte sonn nañu lool nag jigéen yi ku jigéen yi dañoo sonn si kër yi. Mhm. kon nag foog ñu changé day métti waaye boo waxee ak ñoom rek ndànk-ndànk dinañ xam li ngay wax lan la waaye boo njëkkee rek ñëw nga wax moom di nga sonn euh, xas yi ak lépp di nga dëgg nangam nag dangaa bugg lii ak lii xam nga loolu rek si jigéen yi waaye bu demee ba bu demee ba mu yàgg rek dinañ xam fi nga fi nga leen bëgg a jëmale fu baax la ñu topp la waaw parce que épargne yi comme ni niñ koy waxee defe naa war na ñu toll ci jigéen ñi am na benn moment bu nga xamante ni su ngeen di leb crédit ñu leen di lebal ngeen di épargner di ngeen di continuer di liggéey di épargner di liggéey bu fekkee ay 5 millions ngeen di leb mu ngeen dem ba jëmmi jamono 5 millions yooyu dootu leen ko soxlaati day war a fekk yéen ngeen daal di ko yore di ko leblante ci li nga xamante ne moom mooy seen biir boobu tamit neex na lool moom laa la wax sànq mhm. xam nga loolu la ñu jàngal mhm. euh, am naa sama benn rakk mi ngi sàngal kaam moom kalabaas la yore mhm. ñoo ko jàngal mais gis nga moom. Mm-hmm. suñu premier crédit. Mm-hmm. si la commencé di épargner. Mm-hmm. di épargner keroog bi ñu ko laajee compte ba dafa am xaalis. mu wóor la ne kooku sous peu de temps. dootoo ko jëlale ci xaalis ti banque bi day demal boppam mhm. léegi nag loolu la ñu bëgg àdduna bi yëpp dégg ko mhm. ndax kalabaas yi moom wër na àdduna instant bi mhm. première dame wax na ko démb waaye nag xam ne kalabaas yi wër na àdduna lépp lu si waaye indi it di nga fekk nit ñi macha allah ñu nga cay liggéey ba pare xanaa danga leen di dool dolli te koo dolli mu jël nag parce que nag euh, voilà waaw góor moom day yokk ngóor a rek macha allah mais instant bi moom li ma la mën a wax mooy problème yi femmes yi daan am ci banque yi bu ñu jëlee xaalis wàññeeku wàññeeku na depuis calebasse yi commencé. Mhm. wàññeeku na mhm. ndax nee naa la calebasse yi dañuy épargner lu jëm tabaski xam nga un an la. Mhm. crédit dix mois la wala douze mois. douze mois aussi si la ñuy épargner kon boo ko jëlee ubbil ko compte ci mutuel bi nga defee partenariat. chaque semaine comme man chaque mercredi laay calebasse. le jeudi ñu jël ko. yóbbu ci compte ba ah bu ñuy fay foofu la ñuy xool. kon du ñu xam ku retard ak ku retard. déjà épargne bi c'est obligatoire dañuy dañuy kaas ba crédit bi jeex soo génnee li ñu am ñu ne la maa ko dencoon ah, nga ne waaye yaa ko denc te mm-hmm. bàyyi woo ko sa xel parce que booba neex na bàyyi ci xelam mm-hmm. nañ ñu jàppale ci épargne yi mm-hmm. crédit bu ñu jël nañu épargner bu ko defee ñu mën di demal suñu bopp parce que dafa jaadu ndax du ñëpp mën a fay si banque yi xaa taux bi lu mu yomb yomb ñun fi ñu nekk taux bi yomb na lool macha allah taux bi wàcc na mais ndey jibi dénkaane gi tamit da ci baax waaw mais foog nag ñuy dénkaane daal mm-hmm. nañu ci ñëpp jàppale daal bu ñu dénkee <laughs> mu doon lu am solo awaa da fekkee am loo ci bëgg dool yi nga doole ko ci doog a tàggatoo ndax ñu ngi may wax ne li ñu cëralee woon ci waxtu jeex na mm-hmm. oh, waaw dénkaane bi rek ba taxaw si ba tey mm-hmm. dénkaane bi baax na ndaxte bu ñu denculee dara du ñu am dara nañu taxaw si dénkaane bi ñu épargne bu baax a baax bu soobee yàlla fii ak juróomi at ñu génn si ndóol bi calebasse bi moom chaque jour man tey damay calebasse ma jógee fii léegi foofu laay dali ci waaye euh, foog jigéen ñi ñu dëgg ñu xam ne ñun dénkaane bi moom man dama si taxaw bu baax waaw di sant di gërëm sant Adja may mun a si mi dama fekk si ru ko may kurti kurti rek di jog di daanu xëcc ma dugal ma si boppam dugal ma si réseau IMSEC bi mhm. ñu sant Ousmane Thiongaan di sant femme réseau IMSEC yëpp bu nekk Liberté 6 ak Sénégal yëpp nag laa wax mhm. waaw di sant sama borom kër. ndaxte olof Ndiaye nee na feccam liir bu neexee rek yaay ji moo jàpp si mbagg yi. waaw mbagg yi ndaxte bu dul woon moom dara di sotti bu ma jogoon mu ne ma toogal naa toog waaye mu xam li ma bugg mu jàppale ma si bàyyi ma may dox. Adja may si nag dama koy bàyyi ak yàlla rek moom dama koy bàyyi yàlla. si kanamam ak si ginnaawam yëpp sama wax loolu la mënatuma wax dara bàyyi naa yàlla yàlla mi yor fay yàlla dama yàlla fayal Adja may si. sant ñëpp gërëm ñëpp sant la gërëm la ak sa oyofaay ak di nga ni nga ni nga teeroo moom macha allah kontaan nañu macha allah. naa leen tëddee ni ñu koy waxee nee naa leen il faut que ñuy santante ndax ñun doomu aadama yi bu ñu santante wul du ñu mën a sant buur bi subhaanahu wa kon te sunu borom nee na santante te nañuy bëggante te ñuy kañante dafa doon loo xam ne lu am solo la fii àdduna rek la loo fi gis dafay jeex kon nag nañu fexe rafetal yëpp mm. euh, ni ko mag ñi di waxee yéen tamit kenn ma am mbégte dara la si plateau bi lan ngay dénk jigéen ñi doo ko tàggatoo. di sant yàlla bu baax wax di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam ndax lii yombul nag. Mm-hmm. Euh, femme de développement yi ci nekk ci ruq yi te xamuñu leen bari na. waaye gis nga yàlla génne nañu. Mm-hmm. à travers suñu doom. Adja Fatou Sarr ba ñu mën a toog fii tey yow di wax ci jigéen ñi mm-hmm. dañ koy sante yàlla te ku santul nit kon day toog bu ñu toogee si devant le petit écran ñëpp di ñu seetaan mu am ñoo xam ne dañ leen di sant àdduna yëpp di ko dégg ndax day jaadu ñi ngi sant suñu yaay bu baax a baax nga ko waaw ndax jur nañu fi mu ñu war a juree ñi ngi sant suñu papa nag mm-hmm. ndax ku nekk bëgg nga mu jur la waaye bam ñu juree mm-hmm. dañu am papa joo xam ne mm-hmm. moo ñu nàmpatal boppam muy Balla Bokar Jaako yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba man li ma ko yéene ma def ko di sant sama magu xool nag sama xarit lu ma mën c'est grâce à elle Anta Sarr te di garab rek bu fekkante ci kaw la ñuy fekkante mais la ni ki koy jàngal waaw ni xam ne noonu la ñuy nappe waaye soo koy may jën chaque jour du neex jàppale nañu mhm. wan nañu ne nit buñ la may nañ la jàngal ni ñuy mhm. nappe yoon boobu la ñu teg di gërëm sama néegu ndey sama néegu baay samay dëkkandoo mhm. ak femmes yi sikk sama kalabaas yi maa ngi gërëm ñëpp di àdduna bi yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax jigéen ñi vraiment kontaan nañu ci RTS yàlla na yàlla yokk leen ba ngeen yëg ko awaa Euh, da ngaa baax rek waaye nit sonn na si nit sax te kenn du ko dégg macha allah yal na yàlla laf cat di gërëm réseau IMSEC bi yëpp si gërëm bi nag maa ngi koy teg si suñu trésorière sunu yaay Adja Aram Ndiaye Cheikh Aram Ndiaye mu wàcceel ñu ko ci réseau IMSEC yëpp di sant suñu DG Ousmane Thiongaan yal na yàlla yàggal taxawaayam ak sama xaritu xool nag Moussa Ndiaye yal na yàlla yokk ko merci beaucoup <laughs> amiin yaa rabbi ni ñu ko ne du mën a ñàkk bu ñu ñëwee ci télévision yi di gërëm uh, nit ñi des fois dañ leen di bàyyi pour que ñu daal di koy wax femme développement yi comme ni mu ko waxee ñu ngi ci réew mi bëri fi lool ñu war fee mën a toog ci fii nga xamante ne moom mooy uh, takkusaan nee naa leen émission bu mag bi émission nga xamante ne askan wi ñoo ko soppal seen bopp rawatina jigéen ñi mais nag ñu fiy woo tamit ñi nga xam ne ñoom lañu fi war a woo ñu toog di wax ak askan wi dafay am solo ñun li ñu ñor moom mooy leenaa leen actualité ak société bi moom moo ñu ñor bu fi amee rek dañuy daal di ñëw toog waxtaan ak nit ñi Adja Fatou mi ngay wax macha allah ñun ñoo bokk fële ci rajo mu nekk na xale bu baax yeeru torop neexal liggéeyandoor man bu ko gis xamee ba léegi ma grande rek macha allah kon nag euh, journaliste bu mag boobu ajaa Fatou ñu ngi koy nuyuwaat bu baax di ko sarga di ko jaa jaajëfal ñu dem ba régie gërëm waa régie gërëm Francis bu baax a baax euh, sargal ko gërëm ñoom Aada Ñang ñoom ñi fa nekk ñëpp preneur yi ñoom Cheikh ñoom euh, Badiane ndax mu mënuñu leen fay ndax ñoom la ñuy liggéey loolu ñoom ñooy équipe bi nekk suñu ginnaaw kon xale yooyu ñu ngi leen di gërëm di leen sargal ñu gërëmaa tamit caméraman yi yow Majob moom li ma la bëgg wax xam nga ko ngi lay sargal bu baax a baax gërëm Pierre Jean Pierre bu baax a baax sargal ko ak Sange gërëm ñëpp jaajëfal ñëpp joxaat leen dig daje rek ba suba incha allah votre magazine 100% Foot, le rendez-vous des élites et des talents exceptionnels, comme celui de Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de Liverpool, qui à lui seul résume le talent, la sobriété, l'efficacité et la magie du football. Des gestes tellement simples et somptueux, mais si uniques, si fantastiques. Ils sont dévorés Sadio Mané Spectacle, but, et émotion autour d'une passion vécue et transmise dans les stades les plus mythiques. Une des premières transitions offensives des Spurs, Zeng Mingson. Oh, oh Séduire, charmer, envoûter, l'alchimie provoquée par vos stars, vos idoles, des figures emblématiques du football qui se retrouvent dans l'univers de foot. C'est un triplé énorme Triplé de Ronaldo Univers de foot, c'est ici que ça se passe, sur les antennes de votre télévision nationale, et c'est tous les samedis, à partir de 12h. de la RTS, qui est un riche patrimoine d'ailleurs, qui se confond avec l'histoire du Sénégal. Moi, j'ai en mémoire euh, cette émission qui s'appelait Tissot. C'est un pan du patrimoine de la RTS. Mm-hmm. Et ça, c'était la voix qui s'adressait au Sénégal des profondeurs. C'est ça le patrimoine de la RTS.